élection yi bu ñuy wax mun nañ jàpp ne euh, niñ ko doxalee ñu mën ñu mën a lim lenn si mën a jukki rek wax ko mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci yenn bureau de vote yu mel ni Kër Massar nga xam ne Kër Massar dafa amoon découpage bi mu amee découpage carte xabaar yi soppeeku woon nañ ko ñi nga xam ne ñëwoon nañ beneen bi mooy ñi nga xamante ne amoon na ci Thiès ñu koy wax euh, ñu jóge woon ci beneen région ñu jàpp ne waruñu woon foofu te yàlla def na ci sutura mu dul am problème alors bi ñu seetee fi ñuy gëstu aussi li nga xam ne mën nañu ko téye mooy taux de participation bi maanaam ñi participer ci élection bi téeméer boo jël juróom-benn fukk ak benn ñoo participer ci élection bi nga xamante ne moom la ñu moom la wax soixante et virgule dix pour cent ak benn marge d'erreur de erreur de huit pour cent suñu observation aussi lu ñu jox mooy euh, élection yi. Euh, tendance yi si jot a am mooy que ne am deuxième tour ci benn tour lay yem maanaam président bi fal euh, dinañ ko fal normalement te du am deuxième tour biñ si jógee nag am na ay dénkaane yoo xamante ne jàpp nañ ko dénkaane yi mën ci jukki rek yenn ci wolof mooy yenn yu jëm ci suñu administration électorale mooy ñiy organiser élection yi muy e, ñoom seen ak ministère de l'intérieur mooy ñu jàpp ne war nañu a am Sénégal fi mu toll nii benn bu mag boo xamante ne kenn am sikk sax ci ñàkk faral pour mu organiser élection yi et autorité yooyu di organiser élection yi dañu war a gën a leeral seen xam fi ñu commencé

fexe ba aussi découpage bu amee nga xam ne parfois citoyen yi ñu koy subir du laal seen ak ak seen yelleef da nga xam ne ni ñu dal ci Kër Massar loolu ñu dal ci élection bu ma jëlee ci wàllu affaire candidature jàpp nañ ne war nañu am benn système bu ñuy enregistré bu ñuy contrôler parrainage ba mu gën a leer parce que parrainage bi gis nañ jafe-jafe yi ci am euh, mettre en place aussi benn autorité boo xam ne mooy gérer lépp jëm ci candidature yi ba nga xam ne conseil constitutionnel du contrôler du jël lu taxal boppam ci wàllu parrainage ci nekk rek juge du ci nekk acteur boo xam ne day gérer affaire parrainage bi li ñuy mujjee mooy. lu jëm ci wàllum nationalité rek gis nañu naa wàllu am na double nationalité amul double nationalité indi woon ñu coow lu bëri ci biir réew mi jàpp nañu foofu tamit war nañu ko gën a engagé ko ay waxtaan yu ñu permettre problème yooyu dootuñu ko mën a am ci tënk mën naa ne loolu ñu jël jële ci suñu observation dinañ leen jox këyit bi euh, yéen journaliste yi boo xam ne moo yaatu dañ ci wax li tënk la rek pour bañ a mu gudd maa ngi leen di